non mais Youssouf Sabaly bu ñu def lii quand même gars yi Youssouf Sabaly dafay bàyyi équipe nationale Sénégal non déedéet déedéet déedéet yu yu tamit salaam gars yi bëgg naa leen nuyu ko ci nekk seen tur seen sant waaw Youssou loo bëgg waxal baxam da nga bëgg ñu waayal la wala ñu wooral la sa koor gi loo bëgg ñu defal loo ko nga nga yu décision boobu yu yu s'il te bu ñu def noonu sabali ah tamit gars yi Youssouf dafay arrêté ñëw équipe nationale Sénégal dafay prendre retraite am international dina continuer ci club am mais équipe nationale Sénégal dootu fa ñëw ñëwati décision boobu moom la jël mën na koo jël nag à tout moment mu dem ba ci biir delluwaat décision am loolu mën naa ne nag dafa bëgg nee na concentré wu bu baax a baax si carrière am nag blessure daf ko commencé sonal mu ngi noonee te bëgg na tamit defarwaat bu baax mën na concentré wu ci club am malgré il a beaucoup pour l'équipe nationale Sénégal mais tamit. on peut le comprendre on peut le comprendre nag blessure dafa jaxasoo demal maa ngi ñoom ma lay laaj ci commentaire yi est-ce que ànd ngeen ci Youssouf Sabaly jël retraite am ou pas bu ngeen sañoon mu toog wala amul problème mën dem ngeen bindal ma ko ci commentaire yi en tout cas décision la boo xam ne nii c'est personnel te dañ koy respecter choix am mais tamit ñun sénégalais yi du neex ñu ñu ñu accepter ko nag grand joueur la kooku kooku joueur bu mel ni moom latéral bu mel ni moom gëmë ne latéral droit bu mel ni duñ ko gaaw a blessure yi rek rek rek rek mooy problème am mais bu dul woon blessure yi xoolul benn latéral en Afrique xoolu benn latéral droit en Afrique mais malheureusement pour pour pour nous vraiment bëggoon nañ gis Youssouf Sabaly boo xam dafay nekk 100 pour cent mais yàlla baax na vraiment merci pour tout ce que tu as fait pour l'équipe nationale du Sénégal tu as tu as abandonné tes clubs pour venir au Sénégal pour venir jouer pour le Sénégal malgré euh, tu n'es pas vraiment euh, juddoo au Sénégal juddoo Sénégal quand même mu ngi juddoo France mais teewul amour bi mu am ci euh, équipe nationale Sénégal c'est pas facile bi binational am ko mais chapeau à toi le Sénégal te remercie merci pour tout Youssouf Sabaly vraiment merci à toi jaajëf gars yi bëgg naa ngeen defal ma ay cœur yu bëree bëri bëri bëri ci commentaire yi. pour kookeer Youssouf Sabaly drapeau Sénégal kër na ma ko ñëpp tayal ci commentaire yi ñaanal ma bu baax mu continuer carrière am ci club ak jàmm ak salaam di nga arrêté équipe Sénégal mais ñun dañuy continuer di la gën a supporter lépp loo def performance ak lépp ci sa club ñu indi ko yàlla yàlla jàppale taxawal bu baax baax ci barke koor gi jaajëf. Eh! Eh, aujourd'hui aujourd'hui aussi <laughs> c'est le monde parle Eh Eh Eh aujourd'hui, aujourd'hui aussi, c'est Daïla Eh le monde parle Eh Eh Eh Aujourd'hui aussi, c'est un autre. Oh le monde part en couille. Non. Aujourd'hui, aujourd'hui aussi, c'est. le monde part en couille. Aujourd'hui aussi, c'est un autre. 난 레몬 파랑 구. Tout ça, tout Aujourd'hui, aujourd'hui aussi, c'est. Aïe, aïe, aïe. Lemon parang. One, oh, hit that one. Oh, God. One, oh, hit that one. Oh, God. One, oh, hit that one. Oh.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 كنت عايز عمليه جبتوا منين يا عم محمد؟ اعملوا اعملوا له عمليه اسمع اسمع ما تتكلمش ما تتكلمش اوعى تتكلم معاه بكلمه نشيطك والله بتاعتي اول اللي جابك على التليفون سلامة يا كابتن كويس كويس ألف سلامة يا كابتن لازم نروح ألمانيا عملنا فرمان يا كابتن كويس يا محمد تعال تعال تعال تعال تعال يا شوية شدة ولا ايه؟ طبعا راح تقعد راح شوية طيب اقعد راح شوية انت راح فين؟ كنت عايز عمليه جبته منين يا عم محمد اعملوا له اعملوا له عمليه اسمع اسمع ما تتكلمش ما تتكلمش اوعى تتكلم معاه كلمه نشيطك والله بتاعتي ابو اللي جابك على التليفون والله بالله كملوا كملوا لا تعيش كويس ألف سلامة يا كابتن لازم نروح ألمانيا لازم نروح ألمانيا يا كابتن محمد عمل له فرمان يا كابتن كويس يا محمد تعال تعال تعال تعال تعال يا شوية طبعا احنا اقعد ريح شويه طيب اقعد ريح شويه انت رايح فين؟ كنت عايز عمليه كنت منين يا عم محمد؟ اعملوا له اعملوا له عمليه تتكلمش اوعى تتكلم معاه كلمه نشيطك والله بتاع دي مع الابو اللي جابك على التليفون كملوا كملوا ألف سلامة يا كابتن كويس كويس ألف سلامة يا كابتن لازم نروح ألمانيا لازم نروح ألمانيا كأس محمد عمل كويس يا محمد تعال تعال تعال تعال تعال يا شوية انت رايح فين؟ كنت عايز عمليه. منين يا عم محمد؟ اعملوا له اعملوا له عمليه.